وتجلى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu cheikh mouhamadul bachir ci ndigalal mboolem ahlul quran ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te it ñu ngi lay sant di sant ki nga xam ne moom nga toog toogaayam bii fii muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak sa mag ja sa xarit ba ka nga bokkal bëgg-bëgg ka nga bokkal iraada ki nga bokkal pas-pas muy sëriñ Mouhamadou Xaban Mbakke di sant yàlla bu baax di la ko seereloo Mbakke ñun de dara dara dara du suñ bëgg-bëgg lu dul bëgg-bëggu sëñ bi te nag loolu yow rek lañ ci def ngay suñu uswa alxasana ndax gis nañ sa taxawaay ci wetu Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa taxawaay boobu képp koo xam ne kii toq toqub iraada mi ngi ci yow rafetlu nga ko te it jàpp nga ko muy ab royukaay kon Mbakke ahlul quraan yëpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla defal tawfiq ak taysir fii jamihi harakatikum wa sakanatikum yal na nga làq ngërëmal cheikh mouhamadul mountakha mi nga xam ne mooy ngërëmal Serigne Touba te yal na fan wi gudd lool te ànd ak wér ak yokk Serigne Touba yal na xolam sedd ci yow wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci ndigalal cheikh mouhamadul basir nii moom cheikh abdoul xaadir yor kàddu yoon wi doy njabootu Serigne Touba gépp suñu Muntaxa yëpp saa su ne di ko feddali kóoruteem ci moom ak cantam ak ngërëm moo ma jox ndigalal jottali ay kàddu waaye jàpp naa ne sax euh, sañu ñoo wax lu dul ci ndigal kàddu yi kon kàddu yi cant lay doon ak kàddu yi seere cant gi mooy ci ndigalal Cheikh Mamadou Muntaxa liggéey bu mag bii nga xam ne daan nañ ko fi def naka jekk at mu jot muy njàngum alxuraan ak njàngum xasida naka jekk dañ ko daan def fii waaye daaw lañ am tawféexi sëriñ bi boole ñoo sëñ Mamadou Xabaat nii te mu jaaree ci sëñ Mamadou Bachir nii bu ñu boolee ngir liggéey bi ñu defee si ko fii ngir gën koo yaatal ci la ci buntu tawféex yu bëri feeñee ndax daaw rek mu jege ñetti junniy kaamil jàngale te fii lañ ko jàngale ndax Touba gi li fi nekk ci ay daara daara alxuraan yëpp la sëñ Mamadou Xabban soññoon ñu ñëw ànd liggéey bi ren nag daf koo gën a nos nos gi moo tax bés bu set am gox yoo xam ne ñooy ñëw loolu teewul bés bu set barab bi day fees kon mooy wane ne nos koowu day tax lépp gën a tege ci yoon tey jii doon bis bu ràññeeku ndax dañoo tànn ci daara yi nga xam ne mooy daara yi alxuraan yi ñoo xam ne dañoo mokkal wattu alxuraan ñëw di ko tari ku ci ne am ñaar ñoo xam ne ñoo lay téyal ngay tari ba mu wér su ko defee ñu mu leen jox ay shahada yoo xam ne sëñ bi moo koy moo koy signé mu doon loo xam ne dafa mel ni day firndeel lii sëñ Xaadim waxoon léegi alxuraan ni mu dëkkee ak sëñ Tuubaa cant yi nag mooy ànd googu ñu dañ cee gis buntu tawféex yoo xam ne buñ déggee sax ñu naan ñu ngi sant Hizbut Tarqiyyah man dama naan waa Hizbut Tarqiyyah ñu ngi santaat Serigne Touba di sant Serigne Mountakha di sant njabootu Serigne Touba te di te di ko seereel Serigne Xabbaan ak Serigne Serigne lu Mamadou Bachir ndax képp ku la li ci liggéeyal Serigne Touba bu ñu nangu defar na sa àdduna defar na sa àllaaxira kon loolu moo tax ñun. maa ngi jottali ci turu waa Hizbut Tarqiyyah yëpp ne ñun ngi sant tey laxasaayu waat la ca toppit mooy ñu xam ne màggal gi ñu jëm day bis boo xamante ne lépp lu ñu am ci njëriñu àdduna ak alaaxira bis bi moo ñu ko may si Abdou Lahad mu baax bi dafa daan wax ne bi sëñ Tuubaa demee ci liggéey bi ba liggéey bi àgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf koo wax ne ko li li ñu diggee woon ak yow taxoon laa jóg taxatul ñuy wax waaye li bi li fi dale ba ba àddunay tukki saa bu bis bi dikkatee dinañ la defal ci xeeti may ak xeeti pay ak xeeti mbég loo xam ni tol na ni li ñu diggee woon ak yow bi nga xëyee di dem muy loo xam ne kon suñu borom nga xam ne am xajul fen bu fayee sëñ Tuubaa rek mu mën a duy mboolem ndabi àdduna ak ndabi alaaxira mu ne ko nag saa bu bis bi dikkatee dinaa la defalaat ci xeeti may ak xeeti pay ak xeeti mbég loo xam ne ni dina tol dina day ni li ma digge woon ak yow bi ngay jóg kon sëñ tubaa lépp lu waay gis ci lu baax ci yokkute ci njëriñ sëñ tubaa moo ko liggéey te ba mu koy liggéey xariban dalal ahdaay menn moom la woon ci diggu noon yi kon bu fekkente ne tey jii nii alquran dëkk see tubaa ndawi tuuba tey ji am na xale boo xam ne juróom-ñeenti at la am di tari alxuraan tari bu sell loolu ñu war koo wan àdduna bi ndax loolu mooy gànjaru Sénégal loolu mooy ndamal Sénégal loolu mooy loo xam ne Sénégal mën na koo puukare woo adduna puukare woo ko waaye bokkul ak ñu mel nii dañuy jël cër yoo xam ne ñoo ngi koy ñoo ngi koy natt ci yeneen aada wala yeneen doxalin bi ci puukare woo te amul solo ñu bu ñu puukare woo nañ puukare woo mooy suñu cosaan mooy sunu aada mooy sunu ndono te it féeg delluwuñ ci ci jafe-jafe ak coono rek lañu ne kon sëñ bi ñu ngi lay sant dama bëggoon rek saa su ne ñuy wanewaat nun sunu pas-pas nun dongo yi ndax sëñ Tuubaa mi nga xam ne dañ koo jox sunu bopp mu nangul nu ko ah moom ne daf ñoo leeral nangul googu mooy lan ba sëñ moo dem jébbalee boppam sëñ Tuubaa daal di koy wax ne la ko jébbal naa la sama xam-xam jébbal naa la sama sama jëmm ji jébbal naa la sama ruug yi jébbal naa la sama sama jëf yi jébbal naa la sama lépp ba mu koy wax moom sëñ bi dafa woo dongo yi ne leen ndax dégg ngeen li mu wax daf leen di sëñ bi ne leen njébbal njébbal laa leen bëgg a leeral mooy lan da yor as kooku su ndox benn kook soo xamante ne da nga def ndox ah. ki tari léegi. sëtu sëñ ma dem moo ko jàngal waaye dama ne keroog sëñ Tuubaa dafa wax ne njébbal gi ngeen jébbalu ci man laa leen bëgg leeral mooy lan da ngeen am kooku ndox askook kook benn potu ndaa rek def ci ndox nekk ci désert bëgg cee naan bëgg cee sangu bëgg cee fóot bëgg it soo ko amee tey amaat ko suba loolu kooku su ndox mënu ko nga jaaxle lool suñu borom defal la tawfeex nga gis géej ne ko géej damaa bëgg a teg yow jël sama kookos ndox sii sotti ko ci sa biir nga nangul ma ko waaye fu ma soxlaatee ndox nga jox ma ko kon murit bu jox boppam sëñ tubaa looloo ko may lépp lu mu mën a am kon mbàkke ñoo ngi la koy seereel kon sëñ tubaa moo ñu moom nun liggéeyal sëñ tubaa sañu ñu koo bañ a def waaye dañ koy defee xal xalbun salimun xol bu sedd waaw dafa mel ni buñ doon dox yor dàlli weñ ba dàlli xar ba deret di sotti ko suñu tànk mbégte lañ koy àndal waaw ndax sëñ Tuubaa noonu na defoon diggante ak yonent bi kon kaddu yi mënta sori kaddu yi cant la ak kaddu yi seere ak jaayante waat nag ndax alquran jii ñi ci nekk ak xaside yii ñi ci nekk mooy liggéey bi lépp lu ñu gis mu soppiku ci nit ñi xaside yi la ak alquran ji lépp lu ñu gis ci yokkute moo ko waral sabab lu beeg xëccoo beeg ŋaayoo beeg boddante beeg eh, daw beeg dara mayewul dara sëñ Tuubaa faggu lépp kon ñu ngi jéggalu di sant tey tey yeesalaat suñu taxawaay jërëjëf